mais malheureusement ces dernières décisions euh, dañ ko critiquer bu baax a baax am sax ñu ko dindi maanaam je fais allusion au conseil constitutionnel par rapport ak décret bi nga xam ne euh, abrogé woon na ko euh, pour convoquer code électoral bi ñu dem waa conseil constitutionnel daal di koy neenal benn la ñaar aussi mu woote dialogue pour que ñu am élection yi juin bi gars yi dellu ci ginnaaw maanaam le président en fin de mandat. Mhm. ay décisions am ñoo baaxul wala c'est quelqu'un qui est en train de perdre. mais c'est c'est son son pouvoir. il a encore montré au Sénégal quelque chose boo xam ne dañ ko war a graver dans le mar pour di ko exiger les toute personne qui dirigera ce pays. Mhm. le président dans la constitution bi gars yi di sukkandiku di jël ay décisions. il a la possibilité dans cette constitution d'imposer sa décision. vous le savez foofu lañ ko doon xaar. ah foofu lañ ko doon xaar te defu ko. il a dit je de ces institutions là donc respecte. parce que mu ngi jàngale pour le futur il nous donne là des garanties d'un d'un d'un chef d'État qui croit justement à la à ces institutions là qui doivent rester solides et stables donc magistrat yooyu mais daf leen jox seen warma def leen seen décision mu ne je prends acte et il s'est calé à ça exemple la parce que kii dem nii mënoon def leneen ah bu doon bu doon bakkanam parce que mënoon na def leen bu doon fi mu fi ñu ko teg foofu la nekkoon mënoon def ne il ne l'a pas fait aujourd'hui autant ngay gis dans des pays qui nous donnent des leçons euh, prends la France et combien de fois le gouvernement fait, fait passer ces textes par force à l'Assemblée 49 3 et cetera donc toutes les constitutions ont oh, ce, ont ce genre de mécanisme mais le président il a dit je suis je me mets au-dessus et justement je donne une leçon aussi de démocratie et de stabilité de l'État nécessaire pour le futur jàppoo ko désaveu jóge ci conseil mais xam nga moo nommé am Mm-hmm. Hmm? oui dama ne encore dans la constitution bi ñooñu di saytu moom am na possibilité aujourd'hui d'imposer se ces ces ces décisions d'accord nañ ci loolu mais il ne l'a pas fait moi pour moi c'est une autre leçon parce que bu ko defoon fi mu ne nii. parce que si cette crise persiste ñu bëri jàpp nañu ci lañ jëm. Mm-hmm. tas conseil boobu noonu waa PDS seen bëgg mooy benn cour. Euh, cour voilà. te le débat mi ngi mi ngi mi mi ngi gën jukkan. man de man de man de président bi ma dégg. Mm-hmm. nee na il n'a aucune envie de faire usage de telles prérogatives qui sont les siennes. donc loolu laa dégg. Mm-hmm. qui sont les siennes c'est et moi voilà j'ai eu plusieurs exemples parce que ñun parfois aussi xam nga rek. li nga bëgg sa waa kër sa truc nga analyse sa niveau d' analyse nga jàpp ni non lii la ñu war a def boo ñëwee kooku it mais des choses yoo xam ne naan la lii Sénégal soxlawu ko mais lu Sénégal soxlawul nag benn Sénégalais waru ko soxla parce que moo ñu ëmb. Mhm. cette phrase là que les gens n'entendent pas qu'ils ne cessent de répéter. Mhm. nous sommes parce que le Sénégal est. ça c'est très important.